asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info tey ñi ngi fi nga xamante ne mooy école 16 lieu bu école de lutte Balla Gaye eh, ci kanam tuuti jël Père Balla am waxtaan boo xam ne ñu di leen nuyu di leen fay yéen ñëpp waa Guédiawaye foofu sax laay taab bi ñu def transition jëm ci combat bi waral coow li parce que mën nañ ni sa mbër Balla Gaye numéro 2 nga yaa ko tàggat ba tey mu egg fi mu egg am combat capital wala bëre ak Modou Lo le 13 janvier incha allahu rabi tey combat boobu lañ ngeen ci mën a wax. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk def nga li ngay def si lamb ba pare kenn ku nekk am nga li ngay am si lamb ba pare waaye dafa wóorul rek rafetul si lamb kenn daan moroomam ñu xëy ba bàyyi te bëriwuñ ñaareen wala ñett lamb dañu war a bëree comme nit ñi ñu ko soxla temps boobu noonu la mbëri war a defet bëri si temps bu jeexee jeex na waaw ñu gis aussi ci Balla benn confiance bu jéggi dayo te lamb yu mel ni excès de confiance mën na jumloo mbër mi bërki démboo Njaay dal na ak est-ce que loolu yéen ngi ci bàyyi xel ex konfiya mën na juumlu mu waaye mën na jox ndam Gur dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu juumulu danu ndam loolu noonu ngay def ne bay am confiance boobu moo lay may yenn ndam yi moo tax yenn combat yi nga mën am mais bu dee combat bu ñëw rek ngeen ni baaxul du du ndam lu mu am du ko am wa waaw père ñëpp xam nañu expert nga sax xam-xam màcc ci walu làmb nga yàgg tàggat Balla Gaye numéro 2 comme ni ma ko waxee léegi tey combat bu nan la ko wara a aborder nan la ko wara a ba am ci ndam. non foofu du si wax parce que am na ñu ma sut dem ni si ñoom ba ñëw ndax dafa tukki woon ñëw na eh, léeg-léeg ma gis ko léeg du ma gis waaye li wóor-wóor daal ñu ngi xaar suur ba ñu bëri ñu xool lan la indaale ak fi mu demoon lu mu fa liggéey loolu la maa ngi woo si bokk yem foofu. waaw am na ñu la sut loolu dëgg la comme ni nga ko waxee mais loo ñu mës a wax ci Balla Gaye numéro 2 du doñ ñu ngi fàttaliku digganteem ak ndem si yàlla Tyson Tyson junior bi nga koy woo ko Omar defal ndànk teg ko ci yoon ak quelques minutes du coup d'envoi kon tey moo tax ñu bëgg rek bi xam nga nit ay ngëm la am li ngay gëm tey suba doo ko gëm li ngay gëm suba doo ko gëm tey booba temps maa fi nekkoon mu gëm ma ba léegi gëm na mais am na ñu yokk ñu li ñu seet seen xam-xam bu ñu seet seen xam-xam bu dee na mu continué bu dee doxuleet mu dellu si waat rek ñu ko def ñu koy def. waaw ñu aussi ci côté adversaire bi c'est-à-dire camp Modou Lo euh, lu bëri ci mel ñoom combat bi dañ bëgg a yóbbu à l'usure daal koy diireel donc bëreel bëreeg Balla ba pare jéem a jéem a jéem ci am ndam. est-ce que loo est-ce que loolu yow yaa ngi ciy yaa ngi yaa ngi ciy xalaat bu baax. non kooku waxu picc la rek picc buy naaw fu ne la bi di jëm fu mais looy bañ ku la ëpp ko la ko tegul Balla Gaye de guddi yi mu toll nii lu ko neex mën na koo def si làmb mën na bëre am na doole am na sëriñ te am na fit kon donc lu ko neex mën na koo def ah. yee yi ñuy wax ne ay Modou yi Modou Lo ak moroom yom képp ñu muy daan Tyson moo gën a gën a ak Modou Lo wala moo ko doole Bombardier moo ëpp doole Modou Lo Modou Lo mbëri Balla gi bëreel ñoom ñëpp ko ëpp doole dafa góore rek kon nag Balla gi de kenn mën na ko jaaxal pour Modou Lo waaw ci kaw aussi ñu dégg Balla gay 2 mu wax kaddu bu jaaxal ñëpp ni paré na pour les 15 premiers minutes c'est-à-dire mi-temps bu njëkk mu xex ko ak Modou Lo bam jeex dogo a est ce que lool di nga ko diggal mu dëggal lool wa xam nga bëre kenn wàll gi wax la bis ben bis dess dang koy pratiquer bis dess sëriñ ci la moy ñetti paar ñetti paar yoy na yaay xol fo su yobu nit ki rek fofu la mais waxul ni day ñëw rek daan ko dé Modou Lo mi ngi wax ni ko da ngay ciowaay bu ñu dajee ndax bu ñu dajé mëna ko def dajé woon nañu kon yooyu ay waxu mbër la waxu kuy dund la du amu beneen problème bi sax am. Ah, waaw daje woon nañ mais ci diggante bi dañ ni màgg na expérience bi yokku na doole gi yokku na est-ce que yow di nga digal sa mbër mu xeex ak moom. waaw nan la ñu di màggee te yow ñoom ñaar màggante wu ñu kon Balla Gaye de màgg na moom dama lay laaj. man may laaj père. ma ne dama lay laaj ba tey dama la koy delloo. màgg na moom it dama fi nekk pour laaj. ma ne dama fi nekk pour wax la dëgg parce que bu dee Modou Lo màgg na Balla Gaye moom dafa màggul. ñoom ay kalaas lañ ñoo yem at ñoo doon bëri si mbappat di léegi ñu dem ba tollu fii nga ni kii màgg rek kii màggul loolu mooy ban wax. ah ba léegi wax ma màggul de dañoo sukkandiku ci kàddu yu ñu rek waa parcelle seen mbër na te combat bi dina wuteeg bu njëkk. waaw da ngay sukkandiku si li Balla Gaye 2 wax moom it ak paral ñi ñi moom combat bi dina am wuute te it Balla Gaye nekkul mbër moo xam da nga ñëw rek daan ko ñibbi de dafa jafe il faut nga liggéey doo koy mën a daan seega wax ju bari ji sax dama koy wax nii mais du woon sama cër nañu xaar ba gis ko bu mu ñëw taxaw liggéey lu war a mën a taxaw sax nga jël yenn risque yi léegi nag làmb rek laa lay wax nii li làmb tëdde ak ni làmb demee ak moom lu mu liggéey rek moom laa lay wax comme mu nekkoon feneen nii ma la wax noonu laa koy wax waaw. waaw loolu am na mais dafa fekk ne mënoo ñàkk yëy yaa bi ci combat bi parce que observateur yi ak ñi nga xam te ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu làmb ku ci mel ni Moustapha Gueye euh, barki démo Ndiaye nee na bu dee bëree bi Balla am na lu mu ëppalee Modou mais bu dee ci côté xeex bi Modou am na lu mu ëppalee Balla Gaye 2. waaye Moussa Gueye day wax rek wala gi de lépp mana na mana man na amna dole, naa dóor te amna amna doole am na ñu ko jàppale dal na amna am na am kon donc yoy ay wax rek la Balla gi de mom boy seen mbeur rek fu mbeur di yegg yegg na fa lu mbeur def def nako ko. waaw kon père ñu bayal legi nga wax ben message ngay lancer ak euh, lan ngay tagato message bi kay ñaan yalla rek yi des jog parce comme ñe yegg nañu ba paré fu ñu yegg pare. ñaan leen yàlla rek eh, fi mu bëgg a yegg ak combat bi nu jublu yàlla may si ndam rek mu jeex jeex na. ñu lay sant di la gërëm bu baax.